asalaamaaleykum mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di ziar bu baax a baax euh, di wax ngeen di wéy di abonné te di activer cloche bi ndax euh, vidéo bu ñu dugal di ngeen bokk ci ñu ko njëkk a gis way leen di like di commenter également te di partager vidéo yi donc ñu ñëw ci match bu exceptionnel bi nga xamante ne Nampalys Mendy def na ko tey yi ci diggante Lens ak nga xamante ne mooy mu nekkoon première match am ci euh, club bi di Lens depuis ba mu surtout que muy Ligue des champions compétition bu mag mag aujourd'hui on a vu un grand Nampalys Mendy parce que euh, mën nañu wax début de match bi c'était très compliqué ci équipe am ni mu début qualité rencontre bi baaxul mais gis nañ lance boo xamante ne mën nañ ko mais fexe na ba yëkkati niveau bi ñëw égaliser et depuis début de saison bi mu commencé lance dafa metti woon ci moom mais aujourd'hui liñ gis ren ji mooy liñ gis tey mooy lance bi ñu gisoon ci saison daw lance boo xamante ne seen i transition dafay gaaw seen i euh, balle offensive dafay offensivement franchement dañuy